bu ñu ñëwee ci ah xew suba parce que yow yaa ngi ko doon wax sànq muy procès Adji Sarr Ousmane Sonko bën na kët na jonn gis na na nga woon mbir yi xëy na moo tax bu problème amee ñu ne ana Gabriel gis naa le monde fa nga ne. nga ne këf ki dafa détourné taal bi mais tu tu nous expliques comment laataa ñu ñëw ci verdict bi nga xam ne daal suba finalement. <laughs> non yow yow daal booy pikin nga quoi. <laughs> foog nga def sa yooyu. non mais xam nga li may li may li may wax rek xam nga euh, cette affaire là elle a traîné en longueur sa euh, détruit la vie de beaucoup de gens et je pense que verdict bu mën a am suba bu fekkee dañu acquitté Ousmane Sonko Ousmane Sonko du du am bànneex bu fekkee dañu condamné Ousmane Sonko aji Sarr du am bànneex wala bu ñu amee kenn ci ñoom bu amee satisfaction rek du ñu ay nit ndax yaa a beaucoup de vies qui ont été détruites à cause de ça y a de tragédies derrière ça et y a énormément de souffrances yoo xamante ni yi ñu wax ak yu ñu waxul yu ñu xam ak yu ñu xamul dafa am yoo xamante ne ni man quand je dis j'ai été détruite je me suis pas remise de cette affaire là en tant que femme en tant que sénégalaise je ne me suis pas remise xam nga ce sont les sénégalaises on a perdu parce que Pourquoi? cette affaire là pour s'en remettre il faudra des décennies parce que ça a été mal géré on ne sait pas <coughs> complot la politique bi ñiy xëcc fii ñiy xëcc et en fait on ne sait plus en fait mais le début de l'histoire c'était quoi